ñetti doomam noonu la yaayu ñii nga xam ne dañ leen a boom barki démb noonu lañ leen ëmbee juróom-ñeenti weer noonu lañ leen bëggee woon ci seen xol jigéenu Sénégal yi nee nañ arrêtez de tuer nos enfants con arrête de tuer nos enfants qui exercent leur droit constitutionnel doon manifester droit constitutionnel c'est reconnu par la constitution du Sénégal ba ñu ciy boom ñett encore une fois wax nañ ko kenn mësta boomee autant de jeunes enfants que depuis ces derniers mois et ces dernières années il faut que cela s'arrête il faut que cela cesse loolu Macky Sall lañ koy wax na nga buggee sa ñetti doom yooyu nga jur ñooñu la xale yii noonu la seeni way jur noonu lañ leen bëggee woon tey ñu boom leen ñi fi nekk di wax société civile ñoom ñëpp la lutte contre l'impunité fii la commencé ça va se commencer la ça doit s'arrêter démb ñu dégg ci interview bu mu jot a def ne voilà eh bien alors dégg nga maam su ngeen ñëwul dialogué am na ñoo xam ne ñu ngi fian ah, dina ñëw jël le pouvoir loolu mooy appel à de d'état xool loolu la ñëpp comprendre mais loolu c'est c'est assez inqualifiable ko bu ñu la jaarale woon fii ngay jaarale nit ñi kon doo mës dégg président tey nga jaaxle naan voilà da ngeen di ñëw dialoguer wala wala am na ñeneen ñoo xam ne ils viendront les politiciens on doit faire attention c'est toi vous qui devez faire attention monsieur le président de la république c'est vous qui devez faire attention le 2 avril ci la sa ay di jeex terminé li fi xew yëpp yaa ko indi yow ya arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale heure bi bu ñu fekkoon campagne électorale kon ñetti xale yi génn manifester ba ñuy dee du ñu dee sa décision moo indi lii moo indi lii nga xam ne moom la ñëpp di jooy fii Sénégal c'est un pays démocratique démocratie la ñu xam mënoo ko mënoo fee génne démocratie c'est pas possible mënoo génne démocratie fii la nga xam ne moom la ñu lay laaj te mu leer mooy nga organiser élection yi le 2 avril nga jël sa say bagage nga dem amut leneen loo xam ne lii moo fi war a mën a am Votre mandat, Monsieur le Président de la République, vous le savez très bien, il se termine le 2 avril. Cette incitation subliminale, hein, si vous ne venez pas, si on ne dialogue pas, d'autres forces. Quelle autre force Il n'y a pas d'autre force dans le jeu démocratique que les acteurs démocratiques qui sont régis par le code électoral, qui sont régis par la constitution, qui sont régis par la loi. C'est ce qu'on vous demande de respecter rien d'autre. vous devez organiser sans délai le 25 février l'élection présidentielle que vous avez arrêtée à quelques heures de la campagne électorale. Je pour moi, pour quelqu'un qui a été élu grâce à la même régime, vous n'auriez jamais président la République. Cette démocratie sénégalaise qu'aujourd'hui, vous si on ne pas, des forces vont venir et puis nous rétablir. Un à des forces qui n'ont rien la démocratie, absolument rien à voir, et que le Sénégal, la démocratie est ancrée dans nos valeurs. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est sans délai, sans délai, organiser l'élection le 25 aussi au Conseil Nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, vous êtes cinq Sénégalais aujourd'hui. Sachez que sept Sénégalais, sept, l'avenir de ce pays en quelque sorte est aujourd'hui entre vos mains. L'histoire vous a placé devant nous. C'est à vous d'entrer dans l'histoire ou c'est à vous de marcher et de montrer dos à l'histoire. Vous savez pertinemment que la qui a été votée pour le report est une loi anticonstitutionnelle. Nous avons fait recours. Si on veut que le Sénégal continue sa marche démocratique, mais rapportez cette loi qui est anticonstitutionnelle. Et nous retournerons normalement dans le processus électoral qui était entamé et qui n'aurait jamais dû être interrompu. loolu mooy wax ji tey juróom-ñaar ngeen yu sénégalais. yoo xam ne yii bu ñuy seet avenir ak présent au Sénégal mu ngi seen loxo ndax la xew assemblée nationale ñu delloo génne génne génne génne génne délai bi ne non léegi dañu koy yóbbuwaat neuf mois xam ngeen ne loolu tegul ci yoon xam ngeen ko bu baax li président Macky Sall doon wax mu ngi fii tege ñoo àndoon ak moom ñun ñoo doon manifester ak moom na ku ne delluwaat xool dans les réseaux sociaux la mu doon wax président Ablaye Wade ne ko fii doo fi toogaat un jour supplémentaire mais yooyu Macky doo fi toogaat un seul jour supplémentaire kon conseil constitutionnel soxna yeeg ña ne xam leen ne la ngeen war a def pour lii dakk xale yii di génn manifester te ñu am ci droit nag am droit mu manifester di manifester pacifiquement ñu naan leen tell bal ñuy dee vingt deux ans vingt trois ans mais où est le où est dans quel pays c'est-à-dire rien une défaite loolu waroon naa laaj kuy ku jiite réew mi démissionné sa ay propre doom yow ñu tuddee la le père de la nation père de la nation dafa am sens waxuñ ko rek nii mooy da nga war a protéger sa jeunesse sa jeunesse warta génne di di ñu leen di dóor bal ñuy dee kooku jigéenu Sénégal yi duñ la ko mës a baal duñu la ko mës baal la ñuy laaj nag mooy yoon atte ñu mooy lii professeur lii procureur wax muy CPI muy justice képp koo xam ne boobu nañ la la fi dans l' exercice de tes droits constitutionnels mais dinañ ko dinañ ko layoog yow dinañ ko layoog yoon kon cet appel qui a choqué le monde entier tout le monde a compris li nga bëggoon a wax su ngeen ñëwul dialogue armée day jël pouvoir loolu loolu la ñëpp comprendre loolu la ñëpp comprendre te yow nga jaar ci démocratie yow armée ñëwul teg la de ci suñu coobare bopp ñun sénégalais yi ñu def ñu ñu ñu wàccoog yow nag fal la falaat la nga war a dem interrompre processus démocratique bi nit ñi génn di manifester ñetti xale ñetti xale yi doomu Sénégal def fi nga naan eh alors su ngeen ñëwul bu ñu discuter wul d'autres forces mais ces force on a bien compris loolu du fi amee c'est un appel aussi que nous faisons à nos de tenue qui ont toujours été des démocrates kenn du la topp ci lii kenn du la ci topp kenn kenn du la ci topp le 2 avril nga pare sa ay jeex na nga dal di dem ñu organiser ay élection kon sénégalais yi aussi loolu la noonu la ñu taxawee taxawuñu neneen fii du ay casseur nekk ci biti wala ay jeunes lañu ay femmes ay mag yu taxaw gis nañu ay mag soixante-dix quatre-vingts ans yore yore seen drapeau Sénégal personne handicapée bien sur brutalisée cest à yi dangay ngay dem ba yow gàcce ngay am comme sénégalais gàcce sunu wax ju bari jeeg droit de l'homme nga gis say force de l'ordre di brutaliser ay soxna une femme dal doxe ko ginnaaw même pas en face parce que jigéenu Sénégal kenn du leen xoqatal doxe ko ginnaaw dóor mu taxaw noonu la jigéenu Sénégal yëpp taxawe noonu la ndaw Sénégal yëpp taxawee noonu la magu Sénégal yi taxawe kon loolu